pour waxtaan euh, diine ak euh, euh, sunu aada yi naka lañ ko mën lekkulok problématique émergence ma japp ni thème bu am solo la émergence lu am solo la parce que waxtaanu askan bi la ak askan bi naka la mën a lañ naka la ñu changer améliorer condition wante sunu borom daf ñu tontu tontu bu leer ne duma changer sen condition su dee kenn ku nek ci yeen

La ilaha illallah du leneen lu dul libéré nit ki euh, euh, bul gis natal bul gis statuette boy jaamu bul jaamu lenen man sax doo gis je t'interdis nga man ma sax jox ben image lolou yep libérer être humain la pour mu nek ko xamni talent yàlla ne tamit tu es mon lieutenant sur terre yow yaay suma khalifa euh, fi ci kaw souf donc joxna lepp lépp doomu aadama pour libérer wu ku melni seigne sëñ Touba nag wan nañu ko mom donc nek fi sans moyen manam moyen matériel dara def na impact bi réaliser na lu mel won nañu réellement il est possible doomu adama mën def loo xam mission sur terre mais il faut encore une fois que émergence bi mettre l'accent sur ce que nous avons de plus précieux mooy sunu culturel mooy sunu spiritualité il faut cette connexion là Tu vois, wàllu politique souvent ñu ñëw xool les chefs religieux ci le social su amee conflit dinañu leen ñëw seet si wante ci wàllu économique dafay baax tamit point de vue ak point de vue enseignement yi nous avons nous taxaw mode de pensée au moment où un réel, ak yeneen penseurs ñu ngi économie sociale et solidaire de mettre l'accent sur des dimensions importantes aujourd'hui qui portent le développement et la performance question questions inclusives question questions générosité et solidarité dafa dama euh, euh, mettre en avant nos convictions religieuses, nos convictions culturelles, nous devons ko transformer. Encore une fois, une religion pour une spiritualité, mais pas une religion simplement qui m'enferme dans le culte et dans euh, l'obscurantisme. waxuma boobu bi mooy wax que permettre une efficacité boo xam être un bon manager un bon économiste un bon ingénieur Dîner boobu lay libération boobu lay wax gis ko nga euh, appui donc sur ces enseignements là école est jàngaletuñ université yi jàngaletuñu inspiration donc occidentale les préoccupations ne sont pas les mêmes donc s'il y a urgence et une volonté d'émergence donc connexion gogo kontaan tout lool Touba fii ci capitale bi ñu mën def connexion bu mel di débattre di ci discuter je pense que déjà piste pour faire.